asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di char bu wér di leen nuyu ku ci ne ci turam ak santam ñun la seen taalibe Mamadou Moustapha Diouf euh, nekk ci pôle communication Pastef France tey dañoo ñëw ak yéen euh, ci téere bi di solution te Ousmane Sonko njiitul Pastef génne ko yàggul dara euh, téere bi nag dañ ko bind ci nasaraan léegi ñu jàpp ne warugar la ci ñun ñu yaatal ko ci sénégalais yépp te loolu anam bi mu gën a jàppandee mooy tekki ko ci làkk yi ñuy làkk ci réew mi ñuy gën a làkk ci réew mi muy olof ak yeneen làkk yi ñu fiy làkk léegi loolu nag liggéey la buy tegu ci Ousmane Sonko ci boppam liggéey bi mu nar a def ci télévision yeeg rajo yeeg yi ci des ak ñeneen ñi nekk ci parti bi moo xam Sénégal la wala bitim réew léegi dañuy faral di ci jël ñun waa pôle communication ay pàcc yoo xam ne jàpp nañ ne am na solo ñu jëm ko tekkil suñu mbokk Sénégal yi nga xam te ne dégguñu nasaraan wala jotuñu téere bi pour mu gën a jàppandi ci ñëpp pour ñëpp bataaxal bii nga xam te ne Ousmane Sonko bind na ko askanu Sénégal mu mu yaatu ci ñëpp mu daj ci senegal gépp léegi euh, téere bi euh, solo si du jar ma ci yaatal trop ndax ñëpp seetlu nañ ko ñëpp d'accord nañ ci ndax euh, dafa am nu daan defee politique laata Pastef di juddu ak nu ñuy bëgg euh, wala nu ñuy defee politique léegi ci Sénégal ndax li ñu faroon li ñu tàmmoon ci suñu homme politique yi mooy xuloo la woon xeex saagante ŋàññante waaye euh, doon ñu taxaw torop ci li ñor sénégalais yi ku ci ne maanaam da doon jaadu débat yi di nekk ci nan lañu fan lañ bëgg a jëme Sénégal ci yan anam ak yooyu ñun waa Pastef nag li ñu woote euh, mooy faire de la politique autrement mooy defee politique neneen te neneen noonu nan la mooy wax ci li ñor sénégalais yi li leen intéressé rek bañu wax ci leneen mooy à côté yeeg yooyu ñu bañ koo tal te loolu bokk na ci kaw yi te jàpp naa te soo joxee cër sa askan euh, noonu nga war a doxale ñun nag ci loolu lañ bëgg nekk mooy bañ a woote euh, faire de la politique autrement rek mais suñu jëf wane ko te téere bi firnde la ci ndax euh, laata programme di ñëw soo ko dafa jàpp ne day jaadu mu def téere boo xam da ci wax gis-gisam suñ ko joxoon réew mi fan na ko jëmee ak ci yan anam waaw ñun ñi nga xam ne ànd na moom ci Pastef donc moo tax ñu ñëw ci liggéey bii nii ngir yaatal euh, xibaar boobu message bi nga xam te ne son ko jébal na ko Sénégalais yi donc téere bi mi ngi tudd solution solution mën nañ ko tekki ni saafara wala pexe bari na nag nuñ ko mën a tekkee waaye mën nañ ci jàpp loolu mooy nit nekk ci jafe-jafe nga trouver solution mooy nga wutal ko solution wala Sénégal nekk ci jafe-jafe nga trouver ay solution mooy nga trouver ay nga wut ay pexe waaw te moo tax mu tudd noonu solution euh, pour un Sénégal nouveau pour Sénégal bu bees wala bu yees mu ngi nii léegi euh, pàcc bi njëkk ci téere bi mu ngi tudd pour un Sénégal décomplexé croire en nous daf ñuy woo ngir ñu gëm suñu bopp ndax dafa jàpp ne balaa dara dikk gëm suñu bopp dafa nekk loo xam te ne mënta ñàkk balaa ñoo dem fenn léegi téere bi ni mu bindoo mooy euh, pàcc bu ci ne toujours rek comme ni muy def moom ni muy faral di def moom Ousmane Sonko day seetlu li doxul wax li ko waral ba noppi moom mu wax ci lan mooy xalaatam li mu jàpp ne suñ ko defoon amaana ñu génne ci ci jafe-jafe yooyu noonu léegi muy laaj euh, ci tàmbali bi mu naan euh, soo seetloo ci média yeeg ci télévision yeeg yooyu euh, ku koy faral di seetaan du ñàkk nga laaj sa bopp naan ndax yàlla dafay nattu Afrique waaw ndax Afrique yàlla da koo nattu lu tax mu laaj laaj boobu mooy ne comme li ma wax léegi soo seetloo ci tele yeeg rajo yeeg yooyu média yi suñu wax ci Afrique rek liy faral di dellu si ay waxum guerre la. Hmm? waxu waxu xiif gu tar ay ay réew yuy suux ndax kuje politique yu metti xëccoo nguur ay maral wala mbënd mu yéeme te yi ci mujj te doy lool te senegal mucc ci malheureusement mooy ay ndaw ay jigéen ay xale ay mag yuy jël yuy aw ci géej gi ngir dem bitim réew di ci faatu wala di dem ci désert bi di ci faatu ah teg ci ay li mujj mooy ay nit yu ñuul yu jàpp yeneen nit yu ñuul naan dañ leen di jaay ah, ay ay ay feebar yoo xamante ne reyatul keneen ci àdduna bi euh, ñu dul saa Afrique yi ñun rek lay rey donc yooyu daal ngay faral di gis ci média yeeg ci télévision yi léegi mu ne nag yi waral yooyu yëpp mooy guerre yeeg yooyu Sénégal mucc na ci gaa waaye xiif gi mi ngi fi lool ndóol gi mi ngi fi lool waaw léegi euh, mu ne soo seetloo nag euh, sénégalais yi ci ci télévision yeeg ci grand place yeeg ci mbedd mi euh, mën nga leen xaaj ñaari kuréel mu ne kuréel bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne amatuñ benn yaakaar ndax nguur yu yàgga lajj di leen woorit ak réew mu sonn lool ñooñu mooy ñu jàpp ni Sénégal ak Afrique yépp la yàlla boole ci benn mbuus di leen nattu pour ñoom ndóol gi ñàkkum xëy mi ñàkk a mën a faju ji njàng mi sooxe ak Sénégal lim nekk ni daanaka ndaare ci jongante réew yi yooyu yëpp dooy nañ ci màndarga ni yàlla def na woon ginnaaw euh, ñooñu am nañ fi ñu dem sax bay jàpp ni euh, nit ku ñuul ci boppam la yàlla alak di ko nattu jàpp ni xeet bu taayal lan euh, wala ñu dese ci wàllum xel am na ñu jàpp lool ñaareelu kuréel gi mooy borom njortu yi rafeti lool ñooñu lu nu wax rek ni yàlla jàpp ne ñun la fi yàlla nekkal ñoom daal jàpp na ni senegaal ak Sénégalais yi yépp euh, yàlla def leen a tànn bare leen loxo moom Ousmane Sonko mu ci teg ne euh, jàpp na ne dëgg gi gën naa digg doomu loolu euh, mu ne li wér wóor mooy xarañ nañ bépp xarañ ñun waa Sénégal waaye dese nañ koo jëfandikoo fu ñu yegg. mën nañ faa yegg ci kaw ñu xam ko te gëm ko àdduna bi raw gàddu la waxantu ak njortu gu rafet ci suñu bopp rek jëmaluñu fenn bëgg a demay tax a dem boole kook liggéey àdduna bi moo ko laaj muy dolli naan euh, ñoo ngi ñaan sénégalais yépp ñu gëm ni mën nañoo dem te sax dem rek a fi maa ngi leen di waatal ni sunu jubloo ci liggéey te jëfandikoo sunuy xel kanam rek la ñu jëm lenn rek la laaj te mooy waajal Sénégalais yi loolu nag yomb na yombul ndax suñ xamee yoon wi itam tegu ci te sax ci ba yegg day laaj coono gëm-gëm muñ ak dëgër yoon woowu nag ñett a ko lal bi jiitu mooy bëgg sa réew ñaareel bi mooy liggéey ñetteel bi mooy jub ak jubal bëgg sa réew patriotisme liggéey travail euh, jub ak jubal maanaam éthique ñett yooyu mooy tomb yi nga xamante ne incha allahu rabbi dinañ dikkaat euh, fileeg ayubés ngir leeral ko ci olof ak ci yeneen làkk yi bu soobee yàlla jërë ngeen jëf